firndeel bi bis ci campagne électorale candidat bu soxal benn Bokk Yaakaar tàmbale nañ ko ci Guinguinéo jàpp Gossas mag góor ak jigéen ñoom ñëpp a génn ak seeni couleur yan ji bokk ci campagne électorale ngoon gi état bu Diourbel bi lu ñu bàyyi xel ndaxte invité yu bëri dañu ñëw ak ñoo xamante ni dañ ci jàpp bëgg a gis lan lañ fi wax am ñoo xamante ni tamit bëgg déglu lan lañ fi digle fii danaka pas-pas ak farlu moom lañu fi ràññee. ñu tàccu Amadou Ba ne ñoom moom la bëgg mu falu. bi guddi di jot Fatick moo ayee mitin politique buy delloo ci wéeruwaay ak moomeel jàpp ci coalition benn Bokk Yaakaar fii nag wax nañ fi tamit li nga xamante ni moo di programme ñu def ko ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy ndaw ñi mandat bi dimanche prochain la jeunesse va constituer la priorité des priorités de l'emploi des jeunes beneen bi mooy mag ñi. président Macky Sall dafa def bourse de sécurité familiale jox ci trois cent mille bourses dinaa ko yóbbu cinq cent mille bourses waaye cent cinquante mille yi ñi am soixante cinq ans laa koy jox ndax ñu am retraite. ci campagne bi fii ci Sine yëngu na loola mu nekk ndaje politique buy boole mbégte ak yaakaar bootu ci ki nga xamante ni moom la waa benn Bokk Yaakaar tànn mu bëgg a wutu président Macky Sall.